Okay. <laughs>

المعفن بلغ هذا فاجلب Yeah. Mm-hmm.

moom lay def. ba tax na moom mii di sëñ Abdou. ba tax na moom mii di sëñ Abdou. mi ngi leen di xamal yéen ñi ànd ak moom. mi ngi leen di xamal yéen ñi ànd ak moom. ànd ak sëñ Mahmadan. mi ngi leen di xamal ne xolam sedd na. nee li nekk ci xolam ci sedd xol. nee li nekk ci xolam ci sedd xol. làmmiñam mënu ko wax. dara mënu ko xamle. dara mënu ko xamle. lu dul feeñal te lañ ca mën a feeñal. lu dul feeñal te lañ ca mën a feeñal. liggéey bii itam. liggéey bii itam. àgg na foo xam ne bii. àgg na foo xam ne bii. xolam sedd na ci guy. xolam sedd na ci guy. nee na. nee na. nee na. nee na. sëñ Touba. sëñ Touba. xolam sedd na. xolam sedd na. sëñ Massamba. Cheikh Massamba. xolam sedd na. xolam sedd na. moom mii toog it. moom mii sedd na. xolam mi ngi leen di seereel lool mi ngi leen di seereel lool yi fan. loolu nag lañ bëgg. waaw kon nag. sëñ Mahmoudan moo ciy teg ay kàddoom wax na ne. nee mi ngi leen di nuyu lu bari. gannaaw bii mu nuyoo sëriñ bii ba noppi. di ko sant di ko gërëm ndax yoon wii munu jaarale te nga xam ne moom ca la jaar mooy siraatal mustaqim mooy la nga xam ne yàlla gërëm na ko yàlla gërëm na ko yonent bi gërëm ko bi gërëm ko sëñ Tuuba gërëm ko gërëm ko Seex Masamba gërëm ko Seex Masamba gërëm ko moom mii toog mu gërëm ko kon nag war nañ koo sant bu baax. nag war nañ koo sant bu baax. ndax bu nu jaarale woon ci weneen yoon it. mbaa mu maandu. mbaa mu maandu. du tax nu am lii am. du tax nu woon rek. ndax buñ nu bàyyi woon rek. nii nu defee. nii nu defee. duñ ci ci egg. kon nag ñoo sant ci loolu bu baax. kon nag ñoo ngi koy sant ci loolu yi bu baax. gannaaw yëngutu mënta ñàkk. ki la xiir ci nga yëngutu am njëriñ la xiir ci nga yëngutu ci loo xam ne dana la amal njariñ tey ak ëllëg. war nga koo sant. dayeb sant. yàlla na ko fi yàlla yàggal. la nga xam ne moom la yéene ci yoon wi lépp. la nga xam ne moom la yéene ci yoon wi yépp. mu mën koo matal sëpp. na mu ko bëggee. ak na ko borom Tuubaa bëggee. ak na ko borom Tuubaa bëggee. na ko borom Tuubaa bëggee. na ko borom Tuubaa bëggee. moom mii xam na ko. moom mii xam na ko. def na ko. def na ko. def loo nanu ko. def loo nanu ko. kon nag nan ci sax rek. kon nag nan ci sax rek. yéen ñi nga xam ne dafa ànd ak yéen lu kuréel boo xam ne ñoo ko jubal. kuréel boo xam ne ñoo ko jubal. leneen loo xam ne mel na ne. leneen loo xam ne mel na leneen it. mucc mukk. duñ ci mën a mucc mukk. kon nag kon nag. bi nga xamee ne. bi nga xamee ne. jaar nañ fi ñu war a jaar. jaar nañ fi ñu war a jaar. def lañu war a def. def war a def. ba mën a mel nañu war a mel. ba mel nag ba nga xam ne mel na ne nañu war a mel. mi ngi leen ci sant. di leen ci gërëm. di leen ci gërëm. di soññ. di leen ci soññ. nan sax ci lii rek. nan sax ci lii dara. taalibe moom. taalibe moom. la nga xam ne moo baax ci moom. la nga xam ne moo baax ci moom. déglu ndigal. déglu ndigal. bàyyi tere bàyyi ak tere. ndigal loo xam ne def nga ko ba mu egg. ndigal loo xam ne def nga ko ba mu egg. nga toog nga toog. di dégluwaat beneen ndigal rek. ndax yàlla. ndax yàlla. moo yëmul fenn. moo yëmul fenn. kon koo xam ne dangaa bëgg ca la mu yor. koo xam ne dangaa bëgg ca la mu yor. jaaral fa nga war a jaar. jaaral fa nga war a jaar. te def la nga war a def. def la nga war a def. te bañ a tay. te bañ a tay. banyak a banyak bañ banyak xaddi yàlla nañ ci yàlla dimbali yàlla nañ ci yàlla dimbali ñun ñëpp maa ngi leen kan kan kan iya, di sant bu baax mi ngi leen di sant bu baax jëf ji boo xam ne rafetane nii jëf ji boo xamante ne rafetane nii yéen ñi nga xam ne da ngeen topp yéen ñi nga xam ne da ngeen wara topp da ngeen a mel na ngeen war mel da ngeen a mel na na ngeen war mel ndigal yi ndigal yi dimbali sax ci sax la nga di moom lañ jëlee ci liggéey bii la nga xam ne lañ ci te borom tubaa dale ko ci. te borom Touba dale ko ci. kuy mag fekk ko. kuy mag fekk ko. lii sëñ Abdou wax. lii sëñ Abdou wax. mooy wax jooja rek. mooy wax jooja rek. mooy fonk ko. mooy fonk ko. te fas ci yéene jëriñu. te fas ci yéene jëriñu. lañ ci jëlee. lañ ci jëlee. maa ngi ñaan ci bar barkeem. mi ngi ñaan ci barkeem. yàlla nañ leen ko defal yéen ñëpp. yéen ñëpp. te defal na ko. defal na ko. te lii sax lool te lii sax lool. waaw waaw di jëkk ba ma ko jëkkee wax dinaa ma jëkk a wax ne ma loolu li ngay wax ma di ko dégg bu neexee yàlla yoon bi danaa ci jëfe danaa ci jëfe nangam jëkk jëkk ko da nga ko wax mu dellu ca la nga ma waxoon bu jëkk ni ma laamee maa ngi tudd. ah waaw dëkk waaw. du dëj moom. sama sama cant moom. sama walaay mu ko ma ma ma maa ngi ñaan nag loo loolu loolu ma ñaan nga xam ne loolu maa ngi. waaw maa ngi ñaan na sax ba ba ba ci jàll. waaw waaw sëñ bi ngeen doon. waaw xam dem fa muy dal. da ngaa xam mbégteem wala mu feeñal mbégteem rek mooy. mu nekk ci liggéeyu Serigne Touba wala mu gis njabootu Serigne Touba gis ngeen ko noonu nga xamante ne moo Cheikh Abdoul Ahad noonu nga xamante ne noonu lañ waxante ak noonu nga xam ne noonu la bëggee ci kanamu Cheikh Abdoul Ahad ba ne ko ba Daaru Salaam rek damaa bëgg muy lu sax kon loolu.